alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass di ko xam ne. Euh, soxna Astou moom ak euh, xalifa bu njëkk ba di alxaaji Abdoulaye mi njëkk a nekk xalifa baayam ak Seyda Mariam mi nekk Dakar ak Baba Lamine mi amee gàmmu gi ak Seyda Hawa mi nga xam ne moo doon sëy ca Mauritanie ak jëkkëru président yi Mauritanie ba ñuy wax euh, Sidi bin Abdullah alxaaji Abdoulaye jiiju bi moomu kooku mooy soxnaam soxna soosa nga xam ne bàyyi président Mourtani moo koy denc te ma nga Mourtani ba léegi kooku ak Cheikh Mahi ak Baba Lamine ak Seyda Maram ñeent ñoo ñoo bokk ndey ak baay léegi nag Cheikh Mahi moom mooy ki nga xam ne euh, moo topp ci Seyda Mariam moom ak Baba Lamine moo tax Baba Lamine nekk adjoint xalifa fii ñu toll kon bu ma leen bëgg a gàttal kooku ku bayam amoon ci moom yaakaar la ndax daf ko ko won bi moom ak sëñ Maamoun ak sëñ Mouhamadou Nazir mi njëkk a nekk directeur bi ak sëñ Aaxibu ak ki nga xam ne kii mooy euh, Cheikh Mahi mii ñoom ñëpp ak Baba Lamine ñoo bokkoon daara bay indil leen naar gànnaar bu jógee murtani leen jàngal ndax seen làmmiñ rafet mu ne leen ku ci njëkk a mokkal alquran danaa la yóbbu dakaar ca taaxam kawam Alaaji Mor Kan ba mooy muqaddamam ba nekkoon Dakar bu mag ba maahi mii nga xam ne mooy xalifa bi tey di cheikh Mouhamadul Maahi moo njëkk a mokkal alquran ci ñoom ba mokkalee alquran bàyyam ne ko ah mokkal nga de daal di o ay notable yu mag ci la invité woon Seydi Alaaji Abdul Aziz Si mu fekkee fa muy tëree alquran ba mu paree mu wax bàyyi imaam yi di Seydi Ali Cissé mi bàyyi imaam Hassan ak imaam cheikh ak maaxi Maahi ne ko na ci def benn taqrir mu bind ca taqrir bu kem kéemtaan wax ci jaloorey xale bi ci ni mënee alquran waaye ba mu tëree ba pare bàyyi na ko duma la génnee daara ji nga njëkk a génn say moroom di jàng xam bàyyi leen waaye da ngay béqi alquran mooy doomi baay ji nga xam ne moo njëkk a bind alquran te gisu ko loolu nag xam naa tax na li baay gën ko fonk lool am ci moom yaakaar ndax Cheikh Ibrahim def ne karaamay wali dafa mel ni mbërë dafa mel ni góor gu gis régal moo tax wali yu bari seeni karaama Euh, sawaruñ sax di ko waxee moo tax moom mu ñaanoon yàlla ne yàlla na ko yàlla defal euh, alquran wëttu ko ak euh, li nga xam ne mooy ulumul quran ak di ko saare ci jullit ñi ci aalam bi yëpp yàlla loolu la ñaanoon yàlla yàlla defal ko karamam nee na fal tajcalan xifza kitaabika alkarim karamati ila liqaaika alazim maaxi njëkk a mokkal alquran njëkk a béqi mu jël ko béqi boobu am nañu ko mas boole ne ko maahi dafay dem cinéma béqi hut bindut alquranam ji mu yóbbu ko Taïba Niassène ne ko nañ dem ma dagg sa loxo sa sa tànk ndax doo demati ba mu demee mu laaj ko mu tëriloo ko alquran fu mu jukki maahi dem fu mu jukki baahi dem mu ne ko da ngay nafar mu ne ko xanaa léeg-léeg waaye ndekete boobu béqi na mu ne ko wàcceel téere bale muy risaala mu ne ko firil ma dégg mu firi bëkk néeg ba taxawoon ci kanam mun ne ko yow kay sëñ daara nga am ma jox la taalube kon loolu euh, muy junju ne ku mën a al ku teel a mën alquran ku ci def kéemtaan bind ku te gisu ko la baayam fonk ko lool bi jàng jotee mu dugal ko ji bind dalal ko dalal ko bopp euh, xam-xam yónnee ko ci académiciens yu mag yi ñaari daara yi gën a ngand ci Medina Baye daara Seyd Aliou mi bàyyi imaam yi ak daaray ki nga xam ne kii mooy bay amadu Thiam naxu nga xam ne moo jàngal euh, oustaz Barham Diop euh, euh, naxu lu naxu lugal arabiya ci moom la ko oustaz jàngee ba fu mu arab ba ni ñi kontaan mu ñaanal ko yàlla kooku moo jàng ñoo ñoo jàngal sëñ Mahi biñ demee ba niveau bi nga xam ne ñoom fa la ñuy yem bàyyi niveau bu jëm ci nag ak al ihmiraar ak shoraawul jaahiliya téere yu mag yooyu bàyyi moo ko daan jàngalal boppam ba mu ba pare la ko boole ak mbooleem ay rakkam ak i magam ñi nga xam ne ñooy ay ak i taalibe moom Baay fukki nit ak ñeent 1963 yóbbu leen Égypte ñu jàngi foofa la amee daraja yi nga xam ne mooy daraja yu kowe yim am ci xam-xam ci jaamiatul Azhar delsi yàlla def na nag mu nekk borom culture bu yaatu ndax dem na France dund na fa luy dund na fa euh, di yokk xam-xam dem na Angleterre dund na fa yokk na xam-xam moom xalifa bi dem na fi nga xam ne fii mooy gaana ci jamono kurma ànd fa ak oustaz Barham Diop ngir gën a yokk xam-xam oustaz Barham Diop kurma moo ko abboon baay ngir mu jiite section lugal arabiya ci institut bu mag ba nga xam ne moom la fa sosoon sëñ Mahi def na fa euh, def na Libye euh, xarawiyin euh, def na fa def na parcourir bu yaatu bam ñibsee ne liggéey na ci rabitatu alamul islami nekk fa expert bu mag a mag a mag a mag ndax baayam ci membre fondateur yi la waaye nag demeewu fa askan dafa demee xam-xam ak mérite euh, ba mu fa jógee ñëw euh, magam bi nga xam ne bi bi mu nekkee ci liggéey boobu ci rabitatul alamul islami bi magam bi amewoon maat bi génnee àdduna Cheikh Mouhamadou Nazir ci lañ ko jox li nga xam ne mooy euh, mahat bi mu jiite ko mi ngi ci deux mille cinq cent élèves actuellement ñu ngi fay tabax R de boo xam ne euh, dafay yokk mbir ma te lu war a mat <coughs> maanaam juróom ñaar fukki nationalité ña nga fa am na ñu jógee ba Amérique ak sous région bi rawatina Nigeria ak Mauritanie ñoom ñëpp ña nga fa am ay jàngalekat yu jógee Égypte ak yu jógee Mauritanie ñoo fay jàngale ak ay sénégalais moom moo nekk directeur bi en même temps mooy ki nga xam ne moo jël mu gan ni mu jiitee li nga xam ne lii mooy xam-xam ci biir peyu baayam bi noonu la jëlee itam ndonol firim alquran ndax maamam alxaaji abdullahi firi na alquran téeméeri yoon ak ñett diggante Gàmbi ak senegal euh, magam alxaaji abdullahi bi mu nekkee xalifa baayam cheikhul islam firi na alquran ay yooni yoon limu waaye yi ci gën a ràññeeku mooy firi na alquran ñetti yoon ci lugal arabiya firil ko arab yi ci seen boppu jël li nga xam ne mooy euh, arab boobu li leen bàyyi firil biñ ko jëlee euh, li leen bàyyi firil ñoom def leen yitteel bañ def ci ay million yu bëri dem mool ko ci monde arabe tesaare ko ba pare livre bi di tasaaroo ci naan ak Nigeria ñu jënd ko ak Mauritanie euh, ci fan yi ci julli tabaski bi ci la euh, application bi nga xam ne moo amee firi firi alquranu baay ak ci olof ak arab génn li ko dalee minal jinnati wan naasi loolu nag ndono loolu cheikh Mouhamadul Mahi moo toog ci kursi bi nga xam ne mooy kursi tafsir wat weeru koor wu jot dana firi alquran ba mu jeex ci wolof rajo yeeg télévision yi yëpp ci réseau yi jël ko mu boole koog firim alquran mi ak mboolem conférence yi nekkoon ndaw li nga xam ne itam moo doon ndawal xalifa bi ci bépp euh, euh, yónent boo xam ne xalifa baa fa waroon dem te wér gi yaramam mayu ko ko lu mel ni Nigeria lu mel ni Mauritanie lu mel ni France loolu yëpp dafa daan dem euh, te biir Sénégal itam fuñ ko masa oo jotaay oyji na ko nekk conférencier bu mag léegi nag yàlla def muy xalifa bi li nga xam ne moom la njëkk a déclaré mu dëppoo ak li xalifa bu mujj bi një euh, mujj a déclaré xalifa bi lim mujj a déclaré taalibe yim dajaloon ñu indi woon seen participation ci fond Medina Baye daf leen wax ne yéen yéenay taalibe yi Euh, su ngeen doxalee pay bi mu dox waaye lam leen waxut mooy su ngeen ko doxalut mu dox ndax baayam waxoon na lu ko mel ne suba bëgg naa jal bi àgg ca teraas bale ba ñuy tabax jumaa ji ne leen dana fa àgg nag waaye dama leen di laayee biir mooy kenn dama ngeen a góorgóorlu kenn ku ne bala fa àgg potam ak gaalam àgg fa euh, gannaaw gi euh, loolu leer naññi moom la xalifa bi mujj a wax sëñ maahi bi mu toogee daf ne kii moo fi mag dey nangu naa ko waaye xalifa moom kenn ku nekk xalifa nga bépp doomi baay bu ne xalifa nga ca place ba nga toog ak sa responsabilité bépp muqaddam xalifa nga ci responsabilité ba nga nekk bépp taalibe xalifa nga kon ñëpp xalifa lañ waaye nag am nañ mag bu ñëpp dajee xalaat xalaat boo xam ne bi bu rafet lu ñu tànn ba ci gën a rafet seen mag jiite leen looloo fi nekk kon kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati te loolu la wax mu nekk nit ku simple tey res mboolem délégation yim recevoir ñu jaayal leen buntu këram ci piliyaan bi mu teg ci buntu këram ci mbedd mi foofa lay toog ba léegi ndax nee na tëju du ko defal kenn ndax euh, moom ubbeeku la xam ku ñëw da koy fekk ci piliyaan ci buntu kër ga wala cage boo xam ne bii mu ngi ci buntu kër ga bu sëkkee suba la foofa lay toog naan kafeem bu fekkee ngoon la fee lay toog naan ataaya mboolem délégation yi mu recevoir tey ba ci délégation yi kër oustaz Barham Diop mi ngi leen recevoir ci piliam ba ci mbedd ma euh, ñëpp di ko gis mu wax ak ñoom lu ñëpp di dégg kon ku oyof la waaye ku diis la ci gàttal kooku mooy Cheikh Mouhamadul bind kët bu mag la nag bind na itam ay téere